sur la piscine. hôtel bi yàlla ñu jig yàlla na nekk comme sunu hôtel ba hôtel ba ñu nekkoon ca euh, fële mu tudd euh, nu mu tuddati Tajidor ba ñu jigee Tajidor après ñu dem Yaoundé hôtel bi nga xamante ne mooy a Palace foofu la ñu jëlee coupe hôtel Diega Palace la ñu lañu la ñu daloon jël foofu lañ foofu lañ gagné quart de finale hôtel Diega Palace la ñu demi finale hôtel Diega Palace foofu noonu lañ jëlee coupe bi hôtel Diega Palace foofu la ñu déparé jugee jëlee coupe bi indi ko Sénégal hôtel bi yàlla na mel ni hôtel boobu ci ñun yàlla na mel ni suñu tasi d'or ñu préparé ko fii waajee ko fii dem eggalee ko Abidjan jël coupe bi yóbbul ko. c'est beau, c'est joli, c'est hôtel bi mbay yàlla ñu jig. ca mel ni Taji Dóor. yàlla nañu jig yàlla nañu jig mel ni Taji Dóor. hôtel bi yàlla nañu jig. mel ni dama mhm. am nekk lu yomb ndaxte lii nii yëpp Lat Diop moo ko def parce que boo xoolee hôtel yi chambre bu nekk pour deux personnes la mais Lat Diop ba mu ñëwee dafa ne ñii ay kilifa lañ ku nekk nañ ko jox chambre individuelle waaw fii nii moom Bamba Dieng euh, moom mi nga xamante ne moo remplacé euh, euh, kii nu mu tuddati Boulaye Dia mi ngi ne la numéro 9. fële ci kaw nga gis fa Alfred Gomis pour mu remplacer ki nga xamante ne kii moom mooy Seyni Dieng kon anticiper nañu jël nañ les devant espérons que ni kii nga xamante ne kii moom mooy hôtel président dina ci pour a ngi koy nii am ni en exclusivité sur Média Sénégal équipe nationale du Sénégal bu ñu jógee fële ñu jox leen euh, seen drapeau bu ñu pare automatiquement ba wàcc fii si Yamoussoukro fii nii la ñu war a wàcc.